nii lañu teeroo jëwriñ bu bees bi ñu dénk wàllum kaaraange ci doxam nemmeeku bu njëkk fii ci camp Dial Diop. nag euh, dama ko saisir pour ñëw euh, xool li nga xam ne moom mooy armée euh, les forces de manière générale Euh, gis naa ci présentation bi wax dëgg yàlla lu sedd suma xol lu ma rassurer aussi. ci loolu mu ngi ci ñaanal takk der yi nga xamante ni wàcc nañu liggéey ci mission aar askan bi bi ñu amoon. Euh, ñu ñëw fii d'abord sunu xel dem ci ñi nga xam ne euh, pour défendre la république défendre les populations yàlla daf leen ci moom ñu ngi fàttaliku. Euh, avec beaucoup de tristesse seen disparition di ñaan sunu borom mu xare leen àjjana am na ñoo xam ne aussi ci ci xare yi ci toolu xare yi dañuy gaañu euh, ñu ngi ñaan ñooñu aussi ñu delluwaat ci ci seen ci seen euh, sago. mu ngi xamle ni tamit ku suñu armee pare na ngir jànkonteel bépp problème bi mën a jógee ci biir ak bitim réew réew mi. suma xel dal na jàpp naa ne suñu armée pare na pour menaces yi nga xam ne ñu ngi koy gis fépp. Euh, ci biir ak ci biti pour mën a faire face jonkonte ak moom te loolu en tant que citoyen d'abord mais en tant que ministre des forces armées dama koy rafetlu li ci des nag mooy ñun ñëpp ñu gën a góorgóorlu euh, c'est jamais gagné d'avance parce que lii xew léegi ci àddina bi souvent lu ci bare bare bari dafay bettaate c'est des c'est des menaces indécelables donc ñun ñëpp ñu gën a veiller sur tous les aspects pour que menance yooyu ñu man leen a éradiquer bu dee dafay taxaw ci sunu kanam. kii di Sidiki Kaba ci ministère des forces armées mu ngi rafet lu bu baax lim fa fekk di ci sant njiitu réew mi Macky di xamle ni tamit xel war na dal ci pàcc boobu buñ ko dénk.